di wane naqar wi nga xam ne amee nañu ko ci ni Macky Sall yore réew mi yéen kaay gi xëy fësal ci xët mu njëkk ne Sonko réussi son bercier ay junni junni ay doomu réew Sénégal ñoo participer ni ki démba ci concert bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi woote woon nañu ko réussite totale noonu la ko journal bi bindee waaye tamit daal ci teg ab avertissement boo xam ne avertir nañ ko Macky Sall yéen kaay gi de l'info nee na concert bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi ñoo ko woote woon la moo xam ne réussir na démb pari gagné pour ko yéen kaay gi bindee yéen kaay gi dina ci biir ndakaaru ak région yu bare bari ci biir sénégalais ni ki démb ñaawlu nañ bu baax a baax li nga xam ne mooy dund gu cher gi ak ñàkku xëy gi violation des libertés gi nga xam ne ma ngi mel ni tuleeg male journal bii di alerte moom dafa xëy bind mel na luy alerte nee na démb ci conseil de casserole bi nga xam ne yeewi askan yu woote woon nañu ko maanaam sénégal ni ki démb moo doon vibré maanaam sénégal riir na démb journal bi ne capitalu sénégal di dakar kenn démul ñu des waaye tamit ca diiwaanu Sigicoor nga jaar Kolda jàll Mbàkke jàll Louga jàll Kaolack foo ci dem askan wa ni ki démb génne nañu ci conseil de casserole bi yéen kaay gi nee riir bi mel ni tulleeg bi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa ministre Yankhoba Diattara moom nag woo ndaw ñi ngir ñu bañ a topp Ousmane Sonko ka waa coalition Yewwi Askan Wi si yi nga xam ne moom la ñu nekk yéen gi di Vox Populi xëy ñu xibaar nañu méga concert la gis ni ki démb Ousmane Sonko moo nekkoon chef d'orchestre bi bu baax a message bi nga xam ne ni ki démb nag jox nañ ko ko su bañee nag nguur gi jóge fa nag naax saaye yéen kaay gi di direct news xëy di ñu xibaar naa ñu ci àllarba ji concert de casserole bi nga xam ne yeewi woote woon nañu ko ñi nga xam ne ñuy waa université Cheikh Anta Diop bu ñoom kenn demul ñu des étudiants yi démb ambiance nañ ba seen xol sedd waaye tamit cité kër góor gi foofee tamit démb yëngu woon na yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy fësal ci li nga xam ne ndigal de Sonko largement suivi maanaam ndigal li Ousmane Sonko joxe woon démb gars yi topp nañu ko journal bii di Vox Populi nee na étudiants yi nga xam ne ñoo nekk université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru wane nañu seen bopp waaye tamit yi nga xam ne ñoo nekk université Gaston Berger ñoom tamit wane nañ seen bopp bu baax a baax waaye tamit kenn du étudiants yi nga xam ne ñoo nekk sa diwaanu Ziguinchor yokku si étudiants yi nga xam ne ñoo nekk diwaanu Bambey yéen kaay gi di évidence xëy dañu xibaar naan ñu Ndakaaru niki démb yëngu na ndax ñii seeni oto la ñu yoroon doon waaye ñi nga xam na ñoo yor seeni moto am na si sax ñoo xam ne ay saret la ñu yore waaye li garaaw ci mbir mi mooy ndaw ñi génn nañu mag ñi génn nañu góor ñi génn nañu jigéen ñi génn nañu journal bi nee na sympathie bi nga xam na ñu bari amoon nañ ko ci pouvoir bi loolee jamono ji mën nañoo wax ne dafa naax saay évidence mooy wax nee na nguur gii nga xam ne moom laa gis dafa mel ni safatul kenn yéen a kaay gii de la sax nee na concert de casserole bi nga xam ne am na ni ki démb ci Sénégal commerçant yi nga xam ne ñoo nekk marché Sandaga commerçant yu marché Sandaga yi démb ñoom wane nañ seen bopp bu baax a baax avant heure bii jot la commerçant yu marché Sandaga yee maanaam jël seeni kubéeri cin ak seeni bool mbir mi laa la waxante ne pëccëxoo mbir mi mel ne tulleeg màlle yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu confidentiel Afrique dafa xëyoon bind ne Union européenne dañoo sàkku ci état bu Sénégal ngir nag mu reporter élection député yi loolee palais ba dañu koo daal di weddi yéen a kaay gi de la Tribune ñu xëy fekk fa Djibril Wade maire bu Biscuiterie bokk ci benn bokk yaakaar nee na nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi li ñu bëgg ci boppam nekk ndax nag ñoom mënuñu bis bu set ñu bëgg a andi nag ay doxu ñaxtu di marche di woote ay rassemblement loolu munta nekk ndax dafa am ñeneen ñoo xam ne dañoo war a dem dox seen yitte yéen a kaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar naan ñu ginnaaw sorti Aminata Tall bi mu dalee woon ci kaw Macky Sall Mankeur Ndiaye mi nga xam ne moo ko doon dëggal di ko man Mankeur Ndiaye moome na nee na dafa jot ay menace de mort ak ay saaga mu ngi ko yëgal waa biir réew mi di ko yëgal waa bitim réew yéen a kaay gi di réew mi ko di ñu xëy fekk fa Pape Modou Fall directeur de l'emploi coordonnateur coalition républicaine républicaine sàmm sunu réewa moom dal na ci kaw Aminata Tall ba xolam sedd nee na dafa war a reconnaissante war a luwaax yàlla ndax nag président Macky Sall cëral na ko jamono ji Aminata Tall wàllam dafa wéy dafa war a nag xam boppam li tax muy wax ay intérêt rek tax muy wax ndax Sénégal jamono ji ñëpp xam nañ ne démocratie bi Macky Sall def si ay jéego waaye tamit def na ay réalisation ci biir réew mi yoo xam ne loole loolee Aminata Tall daf ko waroon a rafetloo yéen a kaay gii de la sax xëy di ñu xibaar naan ñu conseil des ministres ni ki démb administration territoriale bi chamboulé nañ ko andi nañu ci ay coppite yu bare bare journal bi di Le Quotidien nee na secteur avicole ñi nga xam ne ñoo yar ay ginaar jamono ji sonn nañ ba maara di tale dañoo mer démb sax wàccoon nañ ci mbedd mi ci diwaanu Thiès ndax ñoom nee nañu xont bi nga xam ne moom la ñuy xontee ginaar yi jamono ji maanaam kenn kenn mënu koo gis teg si nag li nga xam ne moom lañ ci jot a gis cher na ba ji gi tayoo ne kaay gi di esata xëy duñu xibaar naa ñu Sadio Mané ma nga sa diwaanu Bayern na démb yëkkati na ay kàddo nee na damaa ñëw Bayern na ngir nag jël fi ay trophée waaye nag sama bëgg-bëgg mooy bégloo